ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew aouzu billahi min asheytaan arrajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidi alwujud muhammad ibnu abdillahi alayhi salaatu wasalaam waaw mbok yi man maay Mouhamadul Bachir khalifatu al xalifatu Alhaji Babacar Niass xalifa Léona Niass ñaarelu khalifa mam khalifa ci Léona Niassène waye ma ngi dekk fi ci Dakar ci Cambérène fi ñi wax quartier islam ci depo depo gas bi sorewul ak jumaay Serigne Cheikh ku ñew fofu bu soobee yàlla dang ñu gis waye nak lu ci upp ci jenn jamono danañ nek ci tol yi wa dañu wa faruk TV ñi ngi leen di nuyu yeen ñi koy topp di ko ci seen tour yi ak seen sante yi wuñ kenn ak kep ku ko mën a ci aduna bi wa for wa TV dañu sakkon ci ñun ñu defal leen ci ben thème bu xawa a muy temu dekkandor ndax nit ñi dañu sagane dekkandor lool te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am fu mi wax naan jibril dan na wacc di denk dénk dëkkandoor bam mu yaakaar ne dëkkandoor da koy don te dëkkandoor dafa bari ay haq yo xamni ni bari na ko koy laaj du la ko wax dëkkandoor am na fukki haq ak ñett ci morom dëkkandooram am na ñoo xam ci ñett yi rek la yem waye bu dee nga dekk ak mom amna fukki haq ak ñett sa digganteeg ak mom yo xamne war nga ko matal momit mu war ko matal Ali nak radiyallahu anhu wala karamallahu wajhahu bañ ko laajee ne ko dëkkandoor fu mu yem def ne ñeen fukki kër ci sa ndeyjoor ñeen fukki kër ci sa càmmooy ñeen fukki kër ci sa gannaaw ñeen fukki kër ci sa kanam kon loolu yaatu na mu ne nag wala képp koo xam ne nii boo demee ci jàkk ngeen bokk fa julli fajar rek te duul ne dafa soxlaa ma ko fa andi ni ku doon dawal oto ba agsi ci jàkk kooku sa dëkkandoor la ñooñu nag dafa am lu la war sa digganteeg ñoom hatta ba ci jahiliya muy ci jamonoy e, bi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ñewagut ci baynal fitra bu yonent jalle ta ab yonent ñewagut lol mo tuddu fitra wax nañ né arab yi ci jamono joju dan nañ magalanté di jéggalanté di dimbalanté ci biir ak dëkkandoor waaye nag fi mu dañ ko yi ñoo lu bare bari ci walu gog ba da nga dëkk ak nit ci benn kër sax doo jox xakam ya nga ca ciow la ya nga ca togn ga première li nga xam ne nii moo war njëkk a war euh, dëkkandoor al ihsaan mooy rafetal war nga rafetal jëm ci moom rafetal gi yàlla moo ne wa'budullaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bisil qurbe wal yatame wal masakine wa jari sil qurbe wa jari junubi wa sahibi bil janbi wabna sabil ñooñu kon daf caa duggee daf caa dugal jaar jaar mooy dëkkandoor Eh, arab yi nak dan nañ wax aljaaru xabla daar bala ngaa dëkk utal ndor bu bax lol nak lañ ci jublu pour sa haq mana mat ci mom haq mana mat ci yow waye bi ci njëkk dal moy nga rafetal sa digganteeg mom muy sa njabot nga xam fi nga leen di jaarale ci sa digganteeg sa ndor nga bañ ko lor fexé ba bul boy tabax sax bo fa defee ay moul wala nga def fa garaway nga gaaw dindiko pour mu bañ fa lor kenn loolu mooy mooy mooy première tomb bi nga xam ne moo njëkk a war jullit ak moroom ja wala ku duhut jullit ak jullit wala yéeféer ak moroom ja maanaam dëkkandoor kese ñooñu lu leen war seen diggante mooy ihsaan boo demee nday Aysa radiyallahu anhu laajoon nañ ko ci mi ne daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane woon na ne dëkkandoor bu ndax booba nag yàpp xawoon na jafe suñ mbokki ciisi ciisi yi ak mbayeen mbayeen yi ñoom <laughs> boo ko tuddee rek maanaam ñu yoxoolu waaw looloo taxoon mu ne yonent bi waxoon na leen sallallahu alayhi wa sallam ne leen bu ngeen toggatee dara lu am ñeex booba ñeex fu ñu ko tuddee rek yàpp lañ ci jublu na ngeen baril ñeex mi bu fekkee yàpp yu mënta àgg ci dëkkandoor yi ku ne ngeen ti tibb ngeen tànk ci may ku mu def ci cereem wala ci nangamam wala ci nangamam waaw loolu ci xàq yi la bokk kon dégg nga ko comme ni ma ni ma la waxee ne la yonent bi sallallahu alayhi wa daan na wax ne Jibril daan na wàcc di ko dénk dëkkandoor bam mu yaakaar ne dëkkandoor dafay doon boobu mooy ihsaan mooy li gën a euh, li mooy bu njëkk bi nga xam ne moom la njëkk teg diggante muy xaq diggante nit ak dëkkandooram maanaam buñ ne jullit ak jullit yéeféer dafay génn te ci lañ bokk ahli kitaab ak fi leneen ak fi waaye buñ ne insaan rek mooy nit ak nit nit ak nit nag xaq bi jaar seen euh, diggante ñoom ñaar ñi dëkk muy comme ni ko Seydina Ali waxee ki nga mën a àndat ngeen bokk jàkk julli ji wala ñeen fukki kër ci ñeenti côté yëpp kooku bi njëkk ci yow mooy nga rafetal ci seen diggante ba war ko nga nuyu di ak mom bo amé nga jox ko xaqu ñaareel bi moy mu bëgg dekkandoram nit dafa wara bëgg dekkandoram waye fo toll di wax ci mom niki légui alquran nak <laughs> daanaka jikko yi fi nek yépp waxon nañu ko ndax mom jamono june mi ngi maase ak jamono alquran heure bu né rek jamono ja tollot mom la tollot mu ne na nga bëgg sa mbokam dekkandor li nga bëggal sa bok ma yuhibbu li nafsi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa wax mi ne ayyuhal mu'minun in kana al ila jiran Jiran salaamatul qalb manam bo beugé sa dëkkandoor sax day tax nga am jamm ci sa xol bi waye fek yang koy soxoré fo tollu sa xol bi ñox-ñox ngay gis muy nekk di am lo xamanteni ne da lay gën di metti ta do ci man dara ndax uh, yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallam wax na ci ben hadith hadith bo xamni bukhari yu moko solo min salamatul qalbi alayhim wa hubbul khair lahum fa uh, fil wa muslim min hadith Anas ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko soloo jëlee ko ci anas kon nag sallallahu alayhi wa sallam li muy wax rek te nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ñu koy roy royloo daf ne man ataa allah man ataa allah man ataa rasul faqad ataa allah képp koo xam ne topp nga yàlla topp nga yonent bi topp nga yàlla mom rek la wax ñu top ko ci diko deglu déglu mag ñu bax ñi bo gisee ñu leen di wax mag ñu bax ñi top giñ topon fi yoonent bi tegoon tankam bi motax ba dëkkandoor ñom buñ rayaan gatt wala dara ñom la ñuy njëkk a ñun nag puukareewu la ñuy njëkk def ci bi danañ am suñu xaram tabaski ñew yew ko ci buntu kër gi di wan dëkkandoor bi ba diko ci sonal ci ay domam bu bu ëndé xar mu tuuti duko ñëmé duggal kërëm lool ci lor la bok war nañ koo moytu suñ xar yi bu la yàlla séddee am xar na nga xam ne bi ngay ñëw indi woo xar xar mooma na ko dugal ci sa biir kër ga ba bisab tabaski ba wala nga seet noo ko doxalee ba bañ cee puukarewu ci biir euh, dëkkandoor yi ndax boo ko defee kat yaa ngay lor dëkkandoor bi nga xam ne yàlla séddu ko wala boog boo ko manee nga dem jëndaaleel ko ñëw jox ko ko te boo koy jox bul woo ay doomam ne am yóotal sa baay hmm. ndax day xam ne dañ ko koo may nan nga koy doxalee négal ba guddi nga fëgg ci buntu kër gi nga ubbi nga ne ko benn jaamab yàlla moo ko fi andi xamut yow la wala xamut kan la te dana la ca jàppee ndax yow yaa fexe ba mu jot ca te yàlla dana la ca fay loolu la ñuy wax naan fexeel ba sarax na sa loxo ndeyjoor bi di joxelu lu sa càmmooy bi yëgut waaw kon boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi mi ne bul lor sa dëkkandoor daf ne la won nga bëgg ko légui nak bu ko lor ndax dafa am haq ndax fa innal jar al ula daf ne dekkandor am ñenti haq yo xamne nak ne na ba moom ñëpp xam nañ ko benn bi su febaré nang ko séti su tisolé su nga bu ne wax alhamdullilah rabbil alamin nga ne ko yarhamukallah soo déggee mu ti tisooli te waxut alhamdulilah nga xokk ko ndànk bul ko wax ne waxal alhamdulilah mu kii nga ne ko boo tisoolee te waxal alhamdulilah loolu mooy isa xatisa bu boobaa nag dem ti tisooli na lañ la wax yow it bu boobaa dana am lum ci jëlee ndax dañuy wax ne dëkkandoor boo koy lor xataa ki nga dëkkalut dal nañu ci benn jamono ñu dem ci benn béréb benn jàkka gis fa koo xam ne yàlla def koo yàlla daf koo nattu mënta jàpp ñu ñëw rek gis ni muy def raxas na loxo yi raxas lii masa bopp bi jaxase ko daal waaye nag wuxuñ ko dara dañoo bàyyi bañ julli ba pare ba mu génn di dem ma dab ko ndànk ne ko sëriñ bi mu ne ah, ma ne ko ah, li ma gisoon ngay jàppee de bu fekkee noonu nga ko mane du xaw nga cee juum mi ne ma sëñ bi damaa mënta jàpp yow mi de ku ko am sutura nga damaa bëggoon ñu dem ba kër ga bañ àggee ñu dugg ca saal ba ma wax ko ko dafa mujj ne ma utal ma ma utal ko man sama doom boole koog moom mu di ko jàngali ba mujj gi fi mu ne faaqee la loo ko laaj ci diine mu tontu la ci noonu la ñuy def ak dëkkandoor waaye mu jàpp ba pare nga ne ko sëñ bi jàppee du nii xuloo lay indi wala xeex mbaa ñaawlante dafa am muy nooy rafetalee jëm ci moom ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew